Nous sommes là euh, devant la salle de délibération de la mairie de Diamagun Nous allons démarrer par la cérémonie des tirages au sort des phases de groupe de la zone 10. Merci maestro. Donc donc ci loolu lañ leen di xaar euh, nawetaan la bu ñu détourner l'objectif nawetaan bi nawetaan la moment boo xam ne bii la s'il vous plaît votre attention s'il vous plaît présidium votre attention s'il vous plaît nawetaan cadre la boo xam ne bii jàmm rek ko war a lal damay wax ne waruñu fàtte instant yu mel nii dara xewgul on est tous des amis et des frères on est tous des parents dafay rafet lien yu ñu unir fii suñu génnee ci biti ñu manifester ko wane ko ba wane lu ëpp loolu ndax ñun ñëpp njaboot lañ bala ñu xam manifestation bànneex kanam yëw gis aussi même chose man sans plus tarder je passe la parole à monsieur le président de la zone pour son mot monsieur da ngay ñëw la ndax suñu micro ku nekk ñu ngi koy nuyu ci turam ak santam di jéggulu tamit ci retard bi parce que 11 defe naa lan convoqué woon kilifa yi ñu ngi démarré au-delà de 11h mais ñoo ngi ci jéggulu bu wér. sans plus tarder nag comme ni ko sunu président bi Biya Ndaw waxee te ni avant ñu commencé dañuy euh, nuyu monsieur le maire. daaw nag def na nawetaan yu neex. Machallah, le football nañu pas match yi jeex incident bu incident mineur am loolu ñu ngi lancer supporters parce que ku wax nawetaan fo ak la jarul 14 ASC ñooy di représenter sen mais kenn rek moko ko les jël ndam li te ki koy jël suñu nous na Nous ba pare. en ku fraternité nawetaan ku xamul camaraderie bokkoo ci nawetaan ku xamul xaritoo bokkoo ci principe yooyu la du leneen. daaw xaw naa yàqu ci diggante ñaari ASC yoo xam ne mën naa ne sax ay tëkkandoo lañ am na yoo xam ne man dama koy déplorer warta am jusqu'à preuve du contraire warta am loolu nag boobo ñun mag ñi war nañ ci kon ne dox di ci ñaax. am na yoo xam ne sax man damay ne bu mu am tolérance parce que tamit yi nga justice des fois day defar kenn ñaanul yàlla yóbbu doomu jàmbur police wala feneen mais tamit am na foo xam ne fa à il faut que tamit justice moo ko yar. di leen wax ne rek grand bi li wax dafa am solo que ni ñun ñii ñëpp ñi fi nekk ku ne da ngay mom sa morom da ngay di defanteeg moom lu baax kon ñun nañuy gën a ñaax xale yi nekk suñu parce que du ñun ñii parce que ñun nii ku ci nekk sa xel war naa dépassé gisanteeg sa morom waxanteeg moom lu ñaaw parce que ku ci nekk kilifa nga mais xale yi chaque jour ñoom ñooy indi yoo xam ne te ñun it nañ ciy gën a bay suñu waar ñun ñi nga xam ne ñun ñoo nekk ci zone bi parce que li grand wax sànq ñun dañuy dem fu ne mais suñu zone bi fi mu ne nii fi mu toll waruñoo fexe mukk mu wàcc dañoo war a fexe mu gën a yéeg. di leen woo ci fair play je crois que loolu bokk na ci engagement yi nga xam ne jëloon nañ ko fi. te tay ji duñu am gàcce wax ne matalewuñu ko ASC yëpp si commune jam gën si kàmbaaw lañ bok donc suñu structure supérieure yi mooy oncave orcave ak odecave donc moom moy structure yi nga xam ne moo kaw nombre d' yi 14 lañu gis ngeen leen yaakaar naa ne jarul ma ci jaar gars yi gis nañ ko donc ASC jàmbaar la 2 Fass Mbaaw Jàmmi Mandela midna Fass Euh, Fass Mbaaw euh, Montagne Nasrulaay Ngalam Sam Sam 3 Sicap Mbaaw teen bi ak Yeewu Tayef ñoom ñooy 14 zones ASC bi. ko A 5 la poule B 5 la poule C 4 la ki mu yëkkati nii mooy poule A te jël nga wane ko ci caméra bi ñëpp gis. ASC Jaami Réew mooy poul A. ñett taxawal yeneen yi da koy def yaay def ñett yëpp. ASC Sicap tête de poule B ASC Mandela tête de poule C ki muy njëkk a yëkkati 2A ASC Fass Chai, cay ASC samsam 3 teen bi ki ci topp mooy 3 a nasurula ay c Jàmbaar 2 A5 Jàmmi Réew Fass Mbao Nasrullah Médina Fass Jàmbaar 2 Poul B Sicap Mbao Samsam 3 Yeewu Taïf Disso yi Montagne Pulsé Mandela Teen bi Ngalam ASC Jàppo ay ca ñu tàccu pour wane jeexalu tirage u kade yi léegi nag ñu jublu ci tirage u senior yi ki muy njëkk génne mooy tête poule A te dëppul A sam 3 Medina Fass Medina fas, ki ci topp tête de poule C Fass Mbao moom bëgg na poule de quatre lool sax Fass Mbao daaw moom la woon ren la Pape ki muy njëkk a génnee mooy 2A génneel 2A. nee na ASC Sicap njëkk a génnee. nee na yeewu Taïf. revanche revanche demi-finale ñu ne. teen bi teen bi de xam nga fu ma toppee rek. ki ñu génnee mooy 3A. Aïe, c'est Diapo, e LG lgi ah waaye ñett ñett Samsam 3 Sikap Mbao japo Montagne Dissot, LGI, Poulpe, Medina Fas, yew Taif, Mandela Ngalam ak jàmmi réew Fass Mbao Tenbi, Nasrullah ak 2 comme nous ko A et Poul B trois qualifiés les génnee Pour C génnee ñaari qualifiés huit équipes ont ñoy dajé quart de finale après demi-finale après finale Un secrétaire de zone mënul di déplacé wu 14 14 yoy nous ñu désigné pour ñu assurer leen secrétariat nous ñoy ñew ci permanence su zone pour di mëna ñew convocation yek calendrier yek courrier yek leneen Voilà, donc... Euh, ok, chers amis téléspectateurs, nous, sommes là en direct de la mairie de, de djamoukins Aujourd'hui, on est venu pour le tirage des phases de groupe de la zone 10 pour les Navetades. Je suis là avec un dirigeant de l'AIC Medina Fasbao. Comment vous allez euh, merci. Je vous remercie de votre part. Encore une fois, Comment trouvez-vous le déroulement des tirages Ça s'est bien passé comme l'année passée, on l'a fait. Ça s'est bien passé euh, pour Medina Fasbao. Et je souhaiterais que je le refasse, que ça, comme ça s'est bien déroulé, Medina gagne la coupe zonale et la coupe départementale que nous avons travaillé et, et, euh, souhaité. Euh, euh, euh, l'a gagné. Inch'Allah. Et quel message allez-vous donner par rapport au vœu de la non-violence pour cette saison Bon, même Dieu n'aime pas la violence. Tout s'obtient par la paix. Donc, on voudrait que la zone 10, la zone 10 grandisse grandisse par la grandeur et puis aussi par bon je, je vois ah, qu'on soit plus intellectuel, hein, plus, intelligent, bon, pour que qu'on ne tombe pas dans la, bon, dans la violence. Parce que rien ne s'obtient dans la violence. En général même, si dans votre quartier, bon, les Nevetanes sont mouvementés par des euh, violences, nos parents nous veulent quelque chose de, ne pas, qui en général ne nous arrange pas. Donc mieux vaut qu'on fasse du bien et que les prières de nos parents euh, nous accompagnent. Ah. Et quel message allez-vous donner pour clôturer Quel message allez-vous donner à vos futurs adversaires Bon, fair play. Fair play. Le football, c'est une fête. C'est universel. Et on peut réussir. Dans les ans, on peut réussir. pour y sortir grand jour. Je suis là en face du président de l'ASC Mandela. Comment vous allez, monsieur Ça va bien, on se porte Ok, maintenant j'aurais aimé que vous me donniez votre aperçu par rapport au déroulement du tour des tirages au sort. Oui, oui, mais ça a été bien, hein. ça a été bien, ça s'est bien passé. Franchement, on, avait, on, a fait le, tirage et puis il y avait la, y avait la transparence quoi. Franchement, ça s'est bien passé quoi. Maintenant, nous voulons savoir par rapport au déroulage, tournage, tirage, nous faisons, fait Qu'est-ce que vous Loko, fait remercier ñi nga xam ne ñoo ci bureau yi quoi di remercier affaire bi nice na trop wax deug yàlla parce que daan ñu ko doxale ni quoi mais comme c'est une première fois dañ koy rafetlu bu baax macha allah quoi. léegi say adversaire say futur adversaire ban message nga leen jox. waaw ah, ñu paré rek xam bon face Mbaw mom euh, toujours paré té ñëpp mom lañ koy paré quoi équipe bu mag la bon ñu leen wax ñoom aussi ñu gëna renforcer wu te xamné bon dañuy dal seen kaw quoi ya mu gëna xam quoi. je suis là avec le président de la commission sport de la mairie de Diamaguène Sicap comment vous allez monsieur. ça va bien merci. Que pouvez-vous nous dire par rapport au déroulement des tirages au sort Bon, dans l'ensemble, je dirais que ça s'est bien passé. Et j'espère que tous les ASC ont été bien représentés. Mais le plus important, c'est la transparence durant le tirage. Je crois que c'est clair. Et quel message allez-vous donner aux supporters, aux ASC, aux dirigeants d'équipe par rapport aux vœux de la non-violence de cette année on va toujours réitérer la demande de l'année dernière, c'est-à-dire inviter les ASC au fair play, tout en leur faisant savoir que la coupe ne dépassera pas la commune. Et nous sommes une famille, donc on va les inviter à, jouer dans le fair play. Et voilà. On vous remercie, monsieur. J'ai là avec moi le secrétaire de la zone 10, monsieur Nangalef maa ngi fi maa ngi bu baax. naka journée bi. alhamdulilah sant yàlla bu baax. léegi par rapport au déroul au déroulement du tirage au sort tey lan ban message nga mën a jox gars ci déroulement beeg yëpp nu mu fa demee non. Euh, vraiment man damay euh, rattaché aussi ci li Cheikh Xarma wax légui légui. Moy transparence bi nga xamantene tirage bi am ko donc kenn mënul wax ni dañu jël part wala jëluñu part vraiment mu nek lo xamantene def nañ ko euh, ci ay anam yo xamantene yu organisé wu et aussi mu nek lo xamantene dal je crois que nit kenn ku ci nek di nga xamante ne lii tiré nañ ko kenn ku ci nek pool bi nga xamantene bi nga bok nga xamantene suñu borom mo la ci bolé quoi. Le tirage a été fait d'une manière vraiment transparente et que ça a été fait selon les performances de l'année dernière. Bon, les prix méritants de l'année dernière ont été placés comme tête de poule. Et ensuite sont venus les, gens, les équipes qui étaient venues en quart de finale. Après, les, bon, les équipes qui n'ont pas pu passer l'étape euh, des quarts de finale. Donc, euh, ça, bon, c'était un tirage au sort, mais quand même qui a été fait d'une manière vraiment qui était très, très transparente. Les tey tirage bi gis nañ ñu fa demee léegi ban message ngay jox say futurs adversaires yow. waaw message yi may jox sama adversaire mooy ñu defar war xam ni du yomb ndaxte daaw man maa yoroon ASC Sika Fass Mbaw moom ma éliminé quart de mu nekk lu ma metti ren euh, Mandela woo ma ma demoon fa euh, daawati jéeg ma nekkoon fa dama quart de laa demoon Sika ba ma gañe woon tamit ba ma nekkee Mandela benn bi laa encaissé année boobu benn bii mi quart de laa ko mu ne defet bu ma metti ma daraat Mandela encore parce que ñoom dañ ma wóolu ñu waat ma kon su ma ñëwee li ma defoon daawati jéeg dama ko war a yokk moo man sa adversaire bu yeboo ñu defaru ñoom sax xam ma man dama ne ko xam ne ma nañ nawet ba dama ci judd xam nga mbëri dañu judd ci football man dañoo judd ci beur man dama judd ci football dama judd sama papa nek joueur nek entraîneur ma nek joueur nek entraîneur te ren du yomb du yomb inshallah allah rabbi. maintenant monsieur le président quel message allez-vous donner aux supporters aux dirigeants des ASC et aux joueurs même par concernant la non-violence. Ah, je vais axer mes propos sur l'esprit de fair play, la sportivité. Parce que la zone 10, c'est une zone référence, c'est une zone phare. L'année passée, on a joué des matchs sans heures, sans incident majeur. Et on a fait de beaux matchs. Le public, euh, euh, les supporters sont venus nombreux assister à des matchs. On a fait une très bonne finale en violence. Euh, notre ASC, l'ASC Midnefas, nous a représenté dignement au niveau du département. Malheureusement, on l'a disqualifié, c'est tapis vert. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes au terme des tirages et au sortir de ces tirages, on a pu interviewer des dirigeants des ASC, des dirigeants aussi euh, de la mairie on a pu les interviewer concernant le déroulement des, tirages au sort et concernant aussi le vœu de la non-violence. Et eux tous ont fait, ont livré des messages très importants envers leurs supporters, envers leurs équipes. Et ce message est, la suivant, le suivant. Chers amis, nous sommes tous pareils, on est tous les mêmes. Donc euh, que vous soyez supporters de n'importe quel ASC, c'est la fraternité, c'est le fair play. Donc venez supporter votre équipe dans le fair play et dans la joie. Merci à vous.